moo tax affaire bi ku bëgg yàlla na ko ñeme góor piir mooy dékku lislaam gëm yàlla sa borom gëm rasul alayhi salaatu wasalaam fas yéene appliqué lim la wax ànd ak sa mbokki taalibe te doo trahir ba noppi boole jafé jafé jamono yow sa kër rek pour nga régler ko sa dom sa soxna sa mak sa rak rek problème biir kër rek manam bo dul jambar deug doo ko dékku waxuma di ci boole leen hein jambar pire moy kabar wara def ñent rakam ëmb liko nakari ci xolam bo nopi di jang faatee ju leer di ca ko sar di sujud ta du daan ta du yum parce que bo yëgu rek yak ko ndax li ngay dundou mais kooku lañ soxla ko lañ soxla nga nga jël yonent bi dundam ku ne ci noonu dafa ko war a dafa war a jàng jël dund yonent bi dégg nga dégg ko maanaam monté ko ci sa biir ku góob ku góob problème moo amut yonent bi guddul fan bàyyi seex cun mee ko mag adduna bi yëpp 6300 la kooku yàggu fi adduna yonent bi yëpp 63 la yow bariwut Mohamed léegi nga jege ko de sa 50 fi ne matul waaw yow yonent bi rakkam nga tuuti nga egg fa mu eggoon te te te te dundam ko ndaw googu la réalisé adduna wala loolu koo xam ne bi muy doon ndaw la tàmbalee fa mu ranki waaye mu doon góor xam nga lu ma ci jublu bëgg nga doon góor yow tam yow yaay faal yow baay faal yow yëpp yow yi mat mer mat fayu nga gàddu ko ba noppi teg ko net du tee nga dem sa yoon yi mat mer waaw nga xam ne li mat na mer nga teg ko ne te sa kaw la dal de di yëg mitit ni ko nit ñi yëgee di am nakar ni ko nit ñi amé di am problème ni ko nit ñi amé ba noppé du té ngay doxal sa anak, ba ki nga seqal aduna japp ni ki mom xana nak innocent ki xamul li xew fek yow li nga fi nga jëm da la gënal fi nga joggé té ngay traverser ni bu la lé do egg fi nga jëm ma la wax ni loy jambat lu né dal na rasul te téewul mu fexe ba ba dominer mondam moom téewul mu fexe ba dominer mondam sëñ Tuubaa mi yow yow lu lay gaar-gaar na Xaadimu Rasuul bu dee dox laa la naqari wax nañ ko ko di bu dee jibar nga wax nañ ko ko bu dee ku tekkiwul dara ci kër gi wax nañ ko ko waaye yëgalu ko yaram ba xëy taxawal muridisme yonent bi yëgalu ko yaram ba taxaw ba taxawal islam maanaam juddu rek yan bu ton yi diine nga war koo yenu te sa ndey néew fi sa bàyyi néew fi lu ko gën a métti lu toll ni monde bu toll ni islam di gën a garaaw sax maa ngi koy wax keroog benn soxna fii parce que xam nga sallallahu alayhi wa sallam yaayam ñaata diir lañ lañ dañ dund Mohamed mbaa yëg nga ni diggante sunu sunu maam Abdallah bàyyi rasulullah ak sunu maam Amina seen dund àdduna yëpp fukki fan la sëy bi yëpp dix jours la tata loolu kéemaan la ndaa xam guri gi pour moom dañ fay yàgg ñoom xam nga ñoom ci arab yi entre parenthèse soo takkee soxna mooy li ñuy tuddee séet doo ko jëli yow yaay dem yow yaay séet yi ñetti fan yu jëkk yi waaw moo abdallah moo takk fasam papam yebal ko mu dem fi sunu maam amina ne trois jours ah bàyyi ko fi ba ci ngone sam dimanche lundi la ek affaire bi soti moy premier souram ma defal lundi mardi mercredi ñatt fan yi jeex na ñu ko ñibi ba muy ñibi ci ñu ne ko ne yóbbaale soxna ci mu andi ko soxna ci am fi juroom ñaari fan ci kër gi ñatt fan ya mu setu ak juroom ñaari fan yi kessé ñu organiser benn séminaire wala foire fi ñuy jënd ak jaay mu war a dem jëndi bagage seni màkk yépp dañuy jëndi marchandise pour exposer seen bagage abdala ànd ca ñoom dem jëndi bagage saam siburu ñu def fa simin ñaari simin wara a moom mu feebar ñu comme nga feebar yow togal fa ñu ñuy dem feer ba continuer mu jëm kër jaayam def fa ay fan génn àdduna soxna saa ngi koy xaar séet bi jëkkëram génn àdduna te yëgu ko Aminata ngi toog di ko xaar Abdallah gaañu na ca njëgg ma une semaine laa la wax la am ci kër gi papam xamul li xew hmm? Abdul Mutalib mi leen jur bëgg doom ji lool sopp goro bi lool ndax moo ko ci yebal doom dem voyage feebar gaañu fa ñu toog ñeenti simin gisuñu ko mu yónni doomam beneen abbas ni ko demal nga seet li ma baxam comme ñi ñëw nañu te moom ñëwut jëlal sama giléem gi nga dem ndax booba téléphone amul mënoo bind leetar fokk déplacement rek lay laaj mu dem ci kër nijaay ya laajte ñun ko ah, ay li mom de febaron sama papa ma waxon ma seet ko mu ñe togg ko ci gilem gi nu and ak mom ba ci benn bàmmeel ni ko mi ngi ni tut mom nga bëgg yob mu wa mu ne ko dem won lako mu ñew fekk ñu ñu ni ko mi ngi ni lañ ci am semena yàlla rek kay buur mooy karim te balaa defar ponkal dina ko teste tarbiyu ko def ko lu mbur dajul ci taal ba pare da ko samp ku bëgg a doon ci yéen ponkal dékkul affaire bi li nga trahison yi du jóg ci àdduna mais su la déstabilisé doo dem xam nooy def bu ci waxta bul nu ko la ci wax parce que dafa lay tardeel domal sa yoon parce que li nga bëgg mu ëpp loolu te lijjanti li ko jarut ba mu fa yàq li ko jar <laughs> musiba mbaa ba kumba la te am na loo xam ne jaru ko baadoola rek koy def comme danga bëgg a bu baadoola bul baadoola yow sérieux xoolal lii heure boobu noonu Seydina Muhammad alayhi salaatu salaam manam bi bay juroom demé wayes genn aduna mbo mi nga and ak yaay waxuma and dox ci mbedd de andu andu andu wa kay andu nek ci bir yaayam la bëgg wax dal xam nga de sama kilifa motax ndax dix jours la dix jours la fa bi am ba léegi papam dem na yaayam momu togon don xaar bi bi bi frère bi ñibbisee ne ko sa jëkkër de rob nan ko ak yuuxoom nga ak coonaam ba mu continuer ëmbam ba ak ténjëm ga ba ba sëy na lu ñëw ci kaw suuf kenn néew ko sa bàyyi ngi nii ko dal ci bayam moko dal ci yaayam parce que boobu tout tànk la bi bi bi bi fi yaayam sey ci delu watu sen dekk mom ba sey lu yott judd ba am un an yu tek ay wer li ñu tuddé fari tank mu ne kon na dem nuyu ci ci ay bokkam dem fa ba nganam di bëgg jeex siburu dab ko mu ne jaboot du wéree àll na dem këram bot doomam ànd ak benn sëram bu ndaw dugg ci àll bi di dox ba ba ci digg àll bi sibur bi gën a metti mu tekki rasulullah teg ci benn affaire bu xaw benn àll bu xaw a jox ko weenam nàmpal ko affaire bi xaw ko girib bi xaw ko sonal mu tëral ko suunu nii yàlla jël bakkanam tit tit tit lu ko neex def suñ borom sëy yottu tànk la feregul soow fekk fi baayam yaay ji mu desoon na ku si war ko nàmpal yaay ji faatu na ci yoon wi eggul jóge na seen dëkku kër ndeyam te eggul kër kër fi mu fi mu doon sëy ay sàmm yoroon sàmm ñooy fekk fekk mu toog yonent bi booba nag doonagu ko noonu la noon lay waxee booba Mohamed la tudd ndax tout tànk la ndax 40 ans lañ ko yónni waaye man maa wax yonent bi ndiir bu wéeru ci wetu yaayam di fofoom nekkate ki ngay ci moom dem mu nga laaxira sàmm yi ñëw wër ko ba ak ni waa xale bu rafet bii yaayam bàyyi ku ne muy wëreelu di ko akaraam fu ne mu jëm fa ñëw soxna si soxna si al ni seen daw ñu yëngal yëngal mu ne ñu ne kii yi ne ko fi nun ko def gas ko foofa suul ko foofa mais léegi liir bi kan moo ko yore ak ku xam sax fu mu dëkk faf cent kilomètres nga def 50 mètres faatu liir bu mën tax ko fo dëkk léegi fo foo jëm saa muy gaddu seenub liir kenn mësu ko gis <laughs> gis nga nga bo jang histoire te maîtriser ko lu ñew lu ne pour nga régler ko day yomb kon ali alayhi salaatu wasalaam lii la dundu ci ndawam nuy dox ba kam an ti da sibru moo demoon don yegle ñi da sibru ñew fekk bammel la fekk ñu gas nañ ko ba suul ko moy top bañ yegni ni ñi ko jël sam yi yob ñoo yóbbu kee moo bu deg ñu ne alimat sadiya ko nàmpal alimat sadiya bokkut ak yent bi dara parce que dañ ko jël yóbbu ko don set ko ko mën nampal ñu ko andi kër maamam parce que don namp te yaam deena na wër ko ko man histoire bu ngi kon ñàkk nay baay afa muy juddu ñàkk yaay bi mu juddoo ba teg ci at ak lu topp maamam fonkoon nañ ma ko gardeel di ko tëraayoo teg ci juróom-ñetteet génn àdduna mu ñàkk baay ñàkk ndey ñàkk maam ji jur ndey ak baay dama bis malaaka yi def benn texte al yutruk nabiyuka malaaka yi ñooy wax ak suñu borom ni yàlla waaw léegi nag yow suñu borom al yatruk nabiyuka malaaka yi ni suñu borom yow ñun wax ñun dée ngenu ni xale bi mooy ki gën ci àdduna te bi mu juddoog léegi yaa ngi teg ci moom ay ay ay ay ay yëf malaaka yi ñooy wax yàlla ni kon nag foog nga nga nga wax nu nag lan moo xew hal ndax yow yàlla yatruk da ngay bàyyi nabiyuka sa yonent bi mahmudan bi nga xam ni koo gërëm mbiram lay doon ëllëg meneen yu mi mu na rek nekk jirim fu mu laxasu nga rey kooka suñu borom ne malaaka yi na ngeen ma seetaan rek bu dul woon ma ne kenn laay bañ mu ne ci moom bu dul woon ma ne kenn laay bañ mu ne ci moom te su ma ko bàyyee ci loolu moom mi li ma bëgg ci moom du ko du ko man foog mu sonn sallallahu alayhi wa sallam bu ñu delsee àjjuma parce que baa ngi dem waaw kay nu eggale film bi xam naa européen yeeg américain yëpp da mën na nu ko nan nag nan ci gaaw nan dellu ci la ilaha illallah ji mu ñu ñu aj mu eggale mu mujj hmm na ku ne jappat la ilaha illallah jundi ak ñet téeméer ak ñeen waaw kay hmm. waaw nañ ko jël te ku koy sikar guddi wala yor yor na nga def salatul qur'aniya waxoon naa leen ko mooy yi ngay def 12 23 34 45 manam bo defé fatiye def fukki lekhlas ak ñaar def fatiye def ñaar fukki lekhlas ak ñett mu ñaar ak nga tàyyi sëlmal def fatiye def fanwer lekhlas ak ñent def fatiye def ñent fukki lekhlas ak juroom nang ko ko naafila saa yoo paree ci saase am nga kaamil buñ nangu julli gi bu paree rek am nga kaamil boo jàng ba yàlla nangu ko kaamil alxuraan téeméeri saar fukk ak ñeent la 12 23 34 45 boo ko calculé loolu la lay jox waaw ndeysaan sama gambien yi 12 mooy fukk ak ñaar ñoom nee naa bàyyi français yi xam nga ñoom anglais lañ dégg te soxna Paye duñ wax dara ci anglais yi ndax neen ko deen ko leeral 23 moy ñaar fuk ak ñet ci l'ikhlas 34 moy fan rek ñent ci l'ikhlas 45 moy ñeent fuk juroom légui gis nga douche bi rak bu jëk bi manam rak bu nek dafa am lu muy tek ci kaw suuf lool la lay wax doomu aadama bën bën yi nga xam ne moo koy produire pour mu dox su su ko produire ba pare su bëggee am jàmm ca la koy génnewaat xam ngeen ñaata la ñaata bën bën la wala jàppatu leen ko xam naa maam góor xam na ko de waaw acca la yéen noof ngeen jàpp onze nga jàpp suñu xaadim Mohamed noof soxna yaay Fall ñoom noof mook suñu xaadim mook suñ moom suñu maam góor est-ce que du douze waaw yi nga xam ni doomu aadama da koy jëfandikoo pour àddunaam dox di ca dugal di ca génne yooyu laa wax rakk bi laa la bëgg wax première rakk nga xam ne boo ko defee maanaam fukk ak ñaari yëpp yaa ngi koy contrôlé léegi juróom-ñaari nekkul ci bopp ñaari ñaari paxi nopp ñaari paxi bët ñaari paxi bakken boo ci boole gémmee ñaata nga am na ñaar yu ne ci suufu nit du juróom-ñeent waa léegi yaay faal mii bu amee doom doom ji fan lay dunde da na a fàtte fa muy dunde sàqam moom amul ñaar foofu waaw buñ ko ëmbee fi muy nekk amul bën bën bu fane ne jumbux booba yaakaar naa moom la de su ma juumut noonu la tëdde fukk ak ñaara ngoog muy benn bëccëg gi ñaata heure la guddi gi ñaata heure la laa ilaha illallah ñaata araf la waxal li nga waxoon léegi muhammadu rasulullah ñaata araf la boo bindee muhammadu rasulullah duus la Abu Bakirin siddiq dus la omar ibnul khattab dus la Usman ibnul afan dus la ali ibn abi talib dus la Ahmad bamba mbake dus la malik si dus la wàññi Sinta araf yi sëñ talaa wax lambal dara way ngay rek la mo fek da ngay wax hein fukk ak ñaara ngoog hmm? ma dagg ko foofu Seydina Muhammad Rasulullah eh, amul morom moom moom day daanu leer <laughs> sekki yi la ma jox moom hmm? kon leer na fukk ak ñaara ngoog maam góor xamoo gars yi dañoo dañoo génn dañoo génnee liir ci dund bi te ñaari sàqam yooyu ñoom sama tante ñoom yor ko moom képp ko soxla nag waaw moom fi ne nii moom moom fi ne kenn du ko sene jarul sax muy siis weenu yaay wu duy soow ku dul liir soxlawu ko kon du sa ngoog bu ci tegu 23 kay ali salatu wassalam ñaatat la ni ma waxon lepp dundam mom la 40 ans société civile la nek 40 boko ko ne ci 63 ñaata des deuxième rakk bangok soko ko rek dund yonent bi alayhi salatu wassalam lu ci tuyaa ba am nga bo defé defee deuxième rakk jank ñaar fukki lixlaas ak ñet ni yegal ci maqaama bi Wow, te gis nga fi ne wañ yépp ci juróom la yem seetlu li ma la wax rek nag nañ ko tàmbali ku dégg wolof nag wax ma dégg waaw wa waaw waaw juróom ak benn ngay wax wa kay wa kay juróom la yam da ngay sàkkaat fi taf fi rek juroom <laughs> ak ben juroom ak ñaar juroom ak ñett juroom ak ñent juroom ak jaxna bo fekk da ngay deesiwaat rek hein 23 bo jëlé 3 ak 2 ñaat la lay jox jaxna moy mooy baytul xutbu gaa yi doog mu sàll si yépp pour ñu am li bëgg ci baytul khutbu 5 bo lañu yaar huwa ah mooy awal huwal awal huwal aaxiru huwal saahiru huwal mooy huwa allahu mooy hubi 23 nga noonu bu mu la jox 30 12 23 34 simin defe naa ña juróom-ñaari fan la asaman defe naa juróom-ñaar la suuf defe naa juróom-ñaar la seen sër bi ngeen tënk foofu la nekk quatre ngay jël bo rek trois jeex na soo indee troisième rakk bi rek maanaam juróom-ñaari juróom-ñaari yaa ngi koy contrôler ñu nga ci li ngay jaamu suñu borom ñëpp nga lay sàbbaale mandaka mo dess eh, des tét tét tét ponkal mango ngoog waaw hmm bo miné fatia bi ñu jang ni ñun nam ta tàmmulee ci tomb rabbi alhamdulillahi rabbi benn tomb la alamin am nga ñaar rahmaani rahim am nga ñaari tomb maliki yow mi am nga ñaari tomb diini am nga ñaari tomb yaaka naxbudu am nga nuun bi ak baa mu ñaari tomb wa yaaka nastahiinu am nga nuun ba ak ñaari tomb nastahiinu ak ñaari fe muy juróom ihdina am nga benn sirata mustaqim am nga xaaf ak taa tombe ak yaa am nga juróom foofu siraatal lësiina am nga benn tomb ak yaa be muy ñett anhamta alayhim am nga noonu anhamta ak dee am nga ñaar xayri am nga ñett max dóobi am nga xaaf ak daat ak baa am nga ñett foofu alayhim am nga fa deux ba tey wala daalin am nga bu daat bi ak yaagi boo limee lii ma la wax 45 tomb lay doon bu ma juumul seeraat leen ko Fatiha yëpp 45 tombes la pourquoi ça 45 tombes ah xam nga 124000 anbiya moo am te boo limee araf Fatiha 124 la bu amin ñëwut téere junni yoon ak ñaar fukki junni ak ñeent mais ki ki nekk abul basar Adam Adama cinq la moo leen jur ñoom ñëpp. moo tax Faatiha jur alxuraan bokkul ci alxuraan day ndeyam yàlla moo ko séparé ne Faatiha bokkul ci alxuraan te noonu ci lañ ko limaale bu yàlla juumul taa wax de man li ma gisoon ci téere bi mooy wala xat atay naaka sab an minal masaani demal nga lijjanti ko ba xam mooy lan ba noppi soo ñëwee nag wal xuraanu asim nga jàng alxuraan wala noonu du aaya bi fatiha mag alxuraan waaye basmala mag fatiha juddoondoo wuñu sax kon 45 la aadama 45 la bismillahi rahmaani rahim mooy basmala fatiha ngi ci alhamdulilahi rabbil alamin yem ci wala daalin alxuraan tàmbale ci alif laam mim fu la ca kaw jeexal mi la jinnati wanaasi fii ci suuf loolu laa gisoon de léegi nag cinq mi nga xam ne mooy tomb bi Faatiha cinq mi nga xam ne mooy Aadama léegi cinq moom mooy kan. waaw du yéene waxoon fii léegi di to bën bëni noof la noof ñëw taxaw na 4 ak cinq gisoo ko la ilaha illallah moo tax ma bëgg ngeen julli ma ñeent rakk yii maanaam maanaam li ñuy wax décortiquer la xaw ma defal naa leen ko de pour maanaam boo ci ne di ko liggéey maanaam boo nekkee rakk première da nga xam ne man maa ngi ci douze douze lii lay tekki boo nekkee ci 23 di nga xam ne lii lay tekki boo nekkee ci 34 di nga xam ne lii lay tekki boo nekkee ci nga mën a teewlu yàlla mm-hmm. foo malaaka yi ni la am nga kamil bu bu bu bu bu nangu ba pare ah fukki nurani ak ñaar am nga ko mission rasulaay 23 la ñu la mu am nga ko 34 bi ñu la am nga ko 45 bi ñu la am nga ko nga tax ñepp def ci sa mbuus do ko tambul def hmm ñaari selmal da ngay def ñaari selmal douze vingt trois sëlmal jógaat def benn ñaar ak sëlmal léegi salaatu nuura xuraaniya mooy boobu salaatul xuraaniya man de jàpp ma ci kaw suuf ni nit mos na ma ko jëkk a wax parce que lijjante ma ko fii nag gaa yi xamoon na nu moom fukki leexlaas ñaar fukki leexlaas fanweeri ñeen fukk ku ne wax na ko waaye salaatu samdaaniya maa ngi xaar keneen ku ne ma ak man ma xool kañ nga ko génne maa ko waxoon ba ma demee ba mu yàgg nag ma dem ko sëñ xaadim dellusiwaat laa génn xuraan yi xam na ko am yoo xam ne foog gaa yi yóbbu la roq ba delloo si la jox la ko na ngeen koy naafilaa fan yi salatu quraaniya moom la nga wax yàlla sa soxla si boo noppee rek si karal laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli shay'in qadir def ko junni ak ñetti téeméer ak ñeent fukk waaw xam nga xam nga poitrine dënn dafa am dafa am doole ci nit ndax fa la lépp placé wu te siru bi day jàpp dënnu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam seetluwoo ko ñaata araf la 1340 dindi sero bi 4 plus ci 3 fobal 1 bi teg ci Muhammadu hayin bi 8 la mooy dëndu rasulullah sallallahu alayhi wa xanaa loolu yéeme na waxoon naa la fii dënn yonent bi alayhi salaatu salaam ibaadaat yi ñuy def nii ci la génne huit maam mooy trois mooy mooy julli juróom suba tisbaar takkusaan timis gee huit mooy cinq mooy julli timis trois rakka la huit divisé par moy julli suba do rakka la gisoo loolu hein 8 divisé par 2 tisbaar ak takusaan ko lepp ci ben araf bi lay génn loo ci man 4 4 bar 4 la takusaan 4 la gee 4 la dégg nga wax 8 divisé par 2 2 des ñaar rakay suba 8 mooy 5 3 la ñett rakkay timis am na 8 mooy 3 5 la juróomi waxtu tàbbi na léegi man waxtoo des jàpp leen ko foofu rek wallaay dama bëgg ñu ànd maa yéen ba ma leen kër yàllaa ngi waaw na ñëpp def julli gi te sikar laa ilaaha wax wahdahu laa sharika la maam jaara wax na dëgg de sëñ Baye Cheikh lii la liggéey ba egg fi mu egg يالنا يالله دفال توفيق الشتر اللهم ربنا تقبل منا انك انت سميع عليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم فخلين بوقتان وي نين ماتريسيكو واخوما ديغ كاسه دي مانام نيماكو توجي نين كو فخه با مانكو توجي نون بيني كو سين كاي